ngeen jot suñu vidéo nag foo si mi wala si biti réew da ngeen di ngeen mën a jot moo leen a xam li nga xam ne président Macky maa ngi lay digal njariñal sénégalais yépp te lii ma lay digal su ma la ko digalee ngir intere senegal di nga ko war a def ndax kuy kuy def digal yi ma lay digal ngir sa intérêt personnel te li may wax xam naa di ko xam ndegam lii ma lay digal da nga koy def ngir sa intérêt personnel di ko war a mën a def kon ngir intérêt sénégalais yépp mooy 99 tonnes yu dugub 99 tonnes yu dugub ñu ngi lay ñaan nga génneel ko sénégalais yi def ko 4 pa euh, ñeenti ñeenti ñeenti ñeenti parti parti bu njëkk bi nga jox ko ñi ko yelloo ci sow bi ci sow côté sow deuxième parti bi nga jox ko ñi koy yelloo ci penku bi troisième partie bi nga jox ko ñi koy yelloo ci saalum bi quatrième partie bi nga jox ko ñi koy yelloo ci gànnaar bi ñeenti partie yooyu ngay def quatre-vingt-dix-neuf euh, tonnes yu dugub jooju génneel ko sénégalais yépp ngir maa ngi rafet njort ni sama wax ji umpul sëriñ Saliou ngir yërmandeem ndax ku bëggoon digle sarax la foofu nag laa ci yem buñ ko defee incha allahu mawlana tabaraka wa yàlla mi nga xam ne moo am kata di may jaam lu ko soob